mu am beneen intention bu safaan mënoo ñàkk nag ndax sallallahu alayhi wa sallam mucc ci maam yi mucc mucc ndax képp ku tegu ci yoon rek fooy ñu tegal la ay doodaan waaye dara du la ci baara incha allah si kàttan yàlla wu tedd wee ca kër ga allahuma billahi wa wallahi wa allahi doxa uu musta jaafu loolu moom amuñu benn mérite duñu yonent duñu malaaka duñu yàlla waaye nit ñu wóoree ni yàlla kenn la ndax am nañ gis nañ tegtal allahuma yàlla du ko benn incha allah taala kon ñaanam ak yéeneem ak i bëgg-bëggam yow ak njaboot bi yëpp dañu ñëpp ci leen yàlla ko yàlla moo ko amiin amiin amiin te te te te xaj maawu lu bare bare bare lu war a ñëw ñu ci yoon te dina at dina am cër sa toogaay bi taxul lool xaw ma fekk to ma mais di ngeen toog waxtaanee waxtaan ko fekk incha allah incha allah si incha allah jërëjëf si jërëjëf jërëjëf ñu bokk jàng fatiha mhm. teg ci benn peru salaat al fatiha juróom-ñeenti yàlla jëf dellu sant ko yàlla def ko hadiya Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mission bi dafa rëy te diis waaye nag alhamdulilah yàlla mi la ko yan moo la koy teeñal incha allahu taala incha allah jël xam naa ni jotaay bi lu yàgg dama lay ñaan rek nga nga bañ nga ñu yeewi la bañ nga yeewi ñu parce que xam nañ ni sa yaram neexul te gan ñaa ngi ci suuf activité yi bëri na waaye alhamdulilah dafa fekk ni sëriñ bi yàlla suñu borom mooy boole ay nit eh, man li may sànc fii man ko nga xale yi léegi leen boobu daanaka fi àll naka naka kër yi fii la ñemoon waaw waaw dëgg la dëgg la dëgg la fii la eh, ba may sànc eh, yàlla suñu kaami bi ñu fa njëkk a jàng yaa ko jàng moo war ba léegi mooy wàcc ci ci kër boobu sa ñaan ak ñaanu mag ñi euh, collègue googu dafa yàgg moo tax saa yu bis bi ñëwee mu xat-xat ci yow danaa force forcé ñëw ànd ak samay samay rak eh, wax la ni la ñu ngi fas yéene feddaliwaat ko looy ko. jërëjëf jërëjëf fas yéene fële gën a dëgëral. di la wax ni eh, yéeg-yéeg bi nga am ci ñun ak jàpp gi ñu jàpp ak fi nga ñu teg man xam naa ko sama mbokk xam nañ ko sama xëy xam nañ ko. lépp benn ci benn rek ñëpp am ca teg seen bët mooy lu ma xuri waxuma sax waaye lu ma xuri rek boo ko yëgee da ngay taal sa oto déplacé yu ñëw taxaw def li nga war a def boo noppee dama tàgg damay ne ana sëñ ba ñu sëñ bi dem loolu li muy wane mooy euh, mooy cofeel engagement kon nag occasion bi occasion la ñu remercier la ci loolu feddaliwaat la suñu suñu kóllëre suñu diggante ak yow waaye itam la xamal ni daal ñu ngi lay gën a tàllal loxo nga gën a ñaan incha allah yaa ngi ñaan sax waaye nga dolli. incha allah ci mission yi ci liggéey yi ci ci lépp rek. waaw di la wax ni kaar kaar teraanga yu ëpp yëpp ak seen dara desul dara desul te sa góor bi daf wax ni sa mbokk bu la defalee teraanga soo weetee na nga ko jébaane ak sa morom say allahuma di ko ñaanal di ko ñaan bi hmm. waaye nee na yàlla di séntu ci yow nag mooy boo wettalikoo ci sa biir yi bokk na ko jéebaane ba ñëpp dégg ko waaw waaye xaj Maodo yónnee la ay teraanga nga war ko jéebaane def loo naan dama koo yeyoo rek wala bokk war na ko déedéet mbaax sa mbaax la sa mbaax la sa mbaax la sa mbaax la kontaan nañu de yow lu ñu def xeeb nañ ko kontaan nañu bu baax kontaan nañu bu baax a baax si jërëjëf kontaan nañu bu baax jërëjëf si jërëjëf sama papa dafa mi ngi lay nuyu alhamdulilah mi ngi lay mi ngi lay nuyu fas naa yéene bu ñu génnee ci lii rek ma ziyaare incha allah waaw yaa ngi koy wax man dama koy xalaat toujours dama dama koy teewlu daal dama ko góor bi dama koy teewlu toujours dëgg la si dëgg la si dëgg la alhamdulilah si si jërëjëf kontaan nañ trop di la masawu coono tamit xam naa ci liggéey waaw coono yi moom bëri na waaye lépp jàmm salaam Sutura. Inşallah. Allah razı olsun. Sutura, sutura rengi soruyorlar.